dal leen ak jàmm wàllu politique mbas mi ak tàggat yaram mu gën a fës yéene kaay génn tey jii nii ki nga xam ne nag dafa bokk ci bureau politique bu alliance des forces de progrès di Pape Sagna Mbaye dafa rafet lu baax a baax xarañ gi nga xam ne kat Macky Sall daf koo xarañ fexe nag Idrissa Seck ak tamit ku jóg politique gi dugg ci gouvernement bi moom Pape Sagna Mbaye démb nag moo nekkoon gan objection Sud FM seen rajo Sud Quotidien daal di koy taataanaat mu ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne rek moo yenn ci yëngu ci wàllu politique ñi nga xam ne kat seen bopp rek dañ koy bañ nee na kat loolu xel mënu koo nangu ñu des ba tey ak suñu naataango Sud Quotidien ñoom dellusiwaat ci li nga xam ne rek mooy njeexital gi am ci diggante nag jubóo gi diggante Macky Sall ak Idrissa Seck loolu nag naka la ci benn bokk yaakaar fas ne taxawee donte sax sénégalais yi bëri nag ñu gëti ay kaddu jaaxle ci li nga xam ne kat moom mooy jubóo gi am ci diggante Idrissa Seck ak tamit kii di Macky Sall Serigne Thiam nekk nag jàngalekat xarañ loolu jëm ci wàllu politique moom nekk ci université Anta Diop bu Ndakaaru moom nee loolu yëpp li ni mel dafa am ngir rek fexe nag ba nag dajale ñi nga xam ne kat mooy njabootu libéral gi biñ ko laajee nag lépp loo xam ne jëm na nag ci ëllëgu majorité présidentielle bi ginnaaw bi nga ne kat Macky Sall ak Idrissa Seck daal di nañuy waaye tamit Omar Sarr dugg na ci nguur gi moom Serigne Thiam nee na kat loolu war na am njeexital ci parti politique yi rawatina ñi nga xam ne ñoo di PS ak tamit ñii di AFP Omar ñoom dugg ci gouvernement bi loolu na njeexital ci parti bi di APR waaye nag Macky Sall xarañ gi mu xarañ moo tax sax na mu commencé waat ay audience dem sax dafa dal ki nga xam ne kat moom moo nekk Moustapha Cissé Lo li ni mel daf koo def rek ngir fexe ba dajale waat ñi nga xam ne kat ñoo nekk ay njabootam loolu yéen a ki adulaas moo ko fasal ci xëtam mu njëkk les échos moom dañoo dellusiwaat ci fanweer yi nga xam ne kat dañ leen tànn ngir rek ñu taxaw temm ñi nga xam ne kat ñoo di waa APR waaye tamit Benno Bokk Yaakaar ñoo leen sas nag bokk na ci fexe nag ba fësal li nga xam ne kat mooy liggéeyu APR waaye tamit di défendre kii di Macky Sall ak tamit régime ci waxtu woo xam ne kat opposition yi moom dafay def kéem tolluwaay kàttanam ngir rek dal a baax ci Macky Sall ñooñu kat li ngeen sant bokk na ci fësal liggéey bi Macky Sall yi liggéey waaye tamit jàppale gouvernement bi waaye tamit di teew ci rajo yeeg télé yi su ko defee rek ñi gën a xam li nga xam ne Macky Sall mu ngi koy liggéey critique di bi ne loolu moom li ngalu sax kii di Ousmane Sonko ci wàllu mbas mi Sud na yëf yi dafay gën di tar bu baax a baax ndaxte kat bés bu am feebar téeméer ak juróom-ñetti fukki nit am nañ wopp soosu di coronavirus moo tax ministre bi ñu nekk wàllu paj gi di Abdoulaye di oote nag sénégalais yi gën a nag sàmmonteeg li nga xam ne moo jëm ci wàllu mesure barrières yi takk masque waaye tamit di am dandante bu toll ci benn mètre su ko defee dañu mën a xeex ak wàllu mbas mi li ñu mel tam la yéen kaab di laas fasal ci xëtam mu njëkk l'observateur di fasal ne loolu kat dafa jaaxal ñu yor wàllu paj gi bu baax a baax tamit ñu ngaan ko nguur gi moo tax sax dàqoon li nga xam ne kat moo nekk couvre-feu kaddu yi Abdoulaye Diouf Sarr moo ko rafetlu ne ne couvre-feu nag su ko defee rek aar ñi nga xam ne kat ñoo nekk doomu Sénégal yi ndax Sénégal attan moom beneen couvre-feu loolu nag l'observateur daf ci taxaw seetlu jox kaddu ñi nga xam ne kat seen xam-xam dafa màcc loolu jëm ci wàllu woowu noonu ko sociologue bi docteur Khalil ñaa yëkkati ci ay kaddu nee na kat doomu Sénégal yi ñoom xalaatul mo ñu nanguwaat beneen couvre ki nga xam ne kat mooy Khalifa Ababacar Diagne nekk psychologue conseiller moom nee na kat am na risque trop su fekkee ne amaat na beneen couvre-feu Mouhamed Dia nekk économiste nekk tamit expert financier nee na kat ci wàllu koom Sénégal du attan beneen couvre-feu Momar Thiam nekk jàngalekat ci wàllu marketing politique moom nee na kat li ni Sénégal war ko mun a xalaat ci wàllu tàggat yaram Pape Bouba Diop samedi lañ ko jébbal boromam fële ci Rufisque li ni mel nag yéen kaay jël si a baax ne xamal ne kat loolu ba fi nga xam ne que mu nekk sëgu a baax jukkoy kii di Pape Bouba waaye nañ ko boromam moom kat moo taxoon ba Sénégal gagné France ci atum 2002 l'observateur ne Pape Bouba Diop moom bay na waaram ci tool bi bu baax a baax li ni mel tamit yéen i kaab di record fësal ci xëttam mu njëkk yéen i kaab di stade di fësal ne Pape Bouba Diop fi mu toll nii denc nañ ko fële ca sëgu dàngu yi Coupe d'Afrique des clubs

La politique, la Covid-19 et le sport sont les principaux sujets développés dans les journaux ce lundi. Membre du bureau politique de l'Alliance des forces de progrès, Pape Sagna Mbaye a loué le génie politique de Macky Sall et le patriotisme d'Idrissa Seck relativement à l'ouverture et à l'entrisme dans le gouvernement d'autres forces politique, invité de l'émission Objection hier sur Sud FM, chaîne radio et repris par Sud Quotidien. L'ancien maire de la ville de Pékin s'est offusqué de l'égoïsme de bon nombre d'acteurs politiques qui refusent de sursoir à leurs intérêts personnels pour le bien de la nation. Nous restons avec nos confrères qui s'intéressent à l'impact des retrouvailles Maki Idi, Beno en danger de mort, barre du journal. Alors que les Sénégalais se posent revendications de la famille libérale, interpellée sur l'avenir politique de la majorité après l'arrivée des deux anciens frères du président Macky dans le PDS, en l'occurrence Idrissa Seck et Omar Sarr, Ce spécialiste en sciences politiques prévient que si les alliés dans Benno Bokk Yakaar n'adoptent pas une démarche rationnelle et prennent leurs responsabilités, ils vont un moment ou un autre en partir forcément. Selon nos confrères du quotidien L'As, l'entrée dans le gouvernement des opposants tels qu'Idrissa Seck et Oumar Sarr avait fini de doucher l'ardeur de la plupart des responsables de l'APR, dont le moral était au plus bas, surtout avec l'éviction des icônes du parti à l'image de Aly Ngouille Amadou Ba, entre autres fins tacticiens, Macky Sall n'a pas attendu la fin des clameurs pour engager des audiences. Tous azimuts avec certains de ses proches avec qui il s'était brouillé pour recoller les morceaux. Macky Sall a reçu hier Moustapha Cissé à son domicile. Avec ce geste, Macky Sall entame une nouvelle opération de charme à l'endroit des bannis de son entourage. Le quotidien Les Échos s'arrête sur la naissance de la task force républicaine. Macky lâche 30 commandos et les gonfle à bloc, barre la une du journal. Mon confrère explique La paire ne compte plus se laisser faire, encore moins laisser le champ libre aux opposants. D'où la mise sur pied de la task force républicaine forte de 30 membres. donc principalement des ministres, des directeurs généraux et des députés. Ces derniers auront globalement pour mission de mettre en lumière les réalisations du gouvernement, de défendre leur leader Macky Sall et son régime, de réfléchir

appel aux populations afin d'éviter une seconde vague de contamination et le durcissement des mesures au Sénégal. La situation de la Covid s'est aggravée ces derniers jours, écrivent nos confrères du quotidien LAS. L'observateur révèle que la situation inquiète les autorités sanitaires et étatiques. Ainsi, le Comité national de gestion des épidémies s'est réuni jeudi pour analyser la situation et préparer des mesures de riposte pour le ministre ont donné la parole à certains spécialistes. Pour le sociologue Dr Kalignan, un second couvre-feu ne sera pas accepté par les Sénégalais. Selon Khalifa Ababakar Diagne, psychologue conseiller, il est risqué pour l'État du Sénégal de décréter un second couvre-feu. Mohamed Dia, économiste expert financier, soutient qu'un autre couvre-feu risquerait de déstabiliser l'économie sénégalaise. Selon enseignant-chercheur en marketing politique, ce serait malencontreuse et politiquement malsain. En sport, les journaux sont revenus sur l'inhumation de Pape Bouba Diop. Selon nos confrères du quotidien national Le Soleil, la ville de Rufisque a refusé du monde samedi dernier. Lors de l'inhumation de Pape Bouba Diop, parents, amis sportifs et sympathisants ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à l'international sénégalais, dont les qualités humaines observateur. Pape Bouba Diop repose désormais au cimetière de Dangour. Renchéri record. Pape Bouba repose en paix, gagne des titres. Le quotidien sportif Stade. Coupe d'Afrique des clubs, Ligue africaine des champions, Teungueth FC décroche une qualification historique selon nos confrères du quotidien sportif SAD. Pour sa première participation en compétition africaine, Teungueth FC s'est qualifié au second tour, éliminant les forces armées gambiennes à la manche retour. le Raja de Casablanca pour le second tour. En Coupe CAF, nos confrères révèlent que le Jaraaf de Dakar s'est aussi qualifié après son match blanc face au Canopière du Nigeria. Les Verts Blancs